sëñ bi daa wax ne man mi bind araf yi day mboolem ñi nga xam ne ñoo wax ne ci man lañ topp maa ngi leen di dénk ñu sàmmoonteeg li ma bind fii lu ma ci digle ñu def ko lu ma ci aaye ñu bàyyi ko suñu defee li ma leen wax njariñ la ci ñoom lay dellu bu ñu ko topput ngaañ la ci seen kaw rekk lay dal tàmbalee ci yéen mboolem ñi nga xam ne yéen topp na ngeen dégg bu baax a baax li may wax te jàpp ko lu yàgg-yàgg bu leen jiyoot shariha ak xaqiqa lu yàgg-yàgg bu leen jiyoo ak shariha ak xaqiqa shariha mooy gëm yàlla ba noppi nag li yàlla rëdd ci téere yi bu dee lu ñuy jëfe nga taxaw temm ci jëfe ko bu dee lu ñuy moytu nga taxaw temm ci moytu ko xaqiqa nag mooy fexe ba lépp yàlla kese rekk tax jëfe ndigal bàyyi tere mooy asharihatu bu fekkee nag jëfe ndigal ga ak bàyyi tere ga yàlla yi kese kese moo tax loola mooy al kon shariha ak xaqiqa léeg bu waxee ko noonu léeg-léeg mu tuddee ko al iman al islam al ihsan boo taxawee te daal ci jëfe ndigal bàyyi tere biir ak ba noppi nag yàlla rek tax kon boole nga shariha ak xaqiqa boole nga al iman al islaam al ihsaan mu ne nag topp ndigal mooy lu ñu digle bu dee lu war nga taxaw temm ci def ko loo xam ne it yàlla sopp na ko warulu ko ci yow sax waaye da koo sopp loo ca man rekk di ko def ba noppi nag boo jëfandikoo lu may lu lew ndax yàlla daa boole ci kaw suuf lu lew ak lu araam jullit nag sañu jëfandikoo lu may lu lew balaa mën a taxaw ci jëfe ndigal bàyyi tere faw rekk am lu muy jëfandikoo muy lekk lu muy sol ci yaramam ak fu muy fatu di fa fegu tàngaay weeg sedd bi bu fexee nag ba lu muy jëfandikoo lu ne ci yooyu muy lu dagan dara bañ caa araam nga xam ne jubluwu ca lu muy rekk mën a taxaw ci li ko yàlla digal ak la yàlla sopp su boobaa kon taxaw na temb ci ndigal mu ne it bokk na ci moytu tere nga fexe xam lépp lu téere rëdd rek ne yàlla da ko aaye nga fexe ba sori ko moo xam aayeeg araamal la moo xam aayeeg sib la te moytu ga ngay moytu loolee ñu aaye muy lu araam muy lu ñu sib yàlla rekk tax yàlla rekk tax doonu réeréy te mooy cosaanal diine wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisiina lahu diin sellal diine mooy jaam bi lu muy jàpp ak lu muy bàyyi ak lu muy def ak lu muy moytu lépp rek yàlla kese kese tax moo tax mu ne na ngeen yem rek ci jëfe ndigal bàyyi tere te yàlla te nag lu yàgg-yàgg bu leen xalaata jéggi yooyu yaar jëm ci leneen lu yàgg-yàgg daal shari ak xaqiqa moom na ci jàpp rekk te bu leen ko nangoo jéggi jëm ci leneen leneen lu ngeen seen lu mu xemm mu xemm it bu leen ko geesu te it li ma leen digal kët lu mat a jàpp la ndax bu ngeen demee ba ca kanam da ngeen xam li tax ma digaloon leen ko ngeen demee ba ca kanam dinañ gis ay mbir yoo xam ne yu doy waar lay doon yoo xam ne teel caa yeewu te di ca yeete ba ca àgg daa mënta ñàkk moo tax nag ba leen di teel a yee ci la leen cay dimbale bu ngeen ci àggee te mooy rek tënku ci shariha ak xaqiqa bu leen dunduk àdduna gi war bu leen seytaani war dee sax ci jéggulu seen boroom ak a tuub di dellu ci moom fu ngeen tollu mu daaneele wallaahu alaa ma naqulu wakiil